ba tey ñu ngi fii rek si jumaa ji nee nañ leen ak Touba Média TV dara du leen raw incha allah rabbi ñu ngi taxaw ak kenn si waa kër euh, Touba yi soxna sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ñu ngi lay ziar si mbaa yaa ngi si jàmm waaw noo dundee màggal gi naka màggal gi. waaw sant sëñ Tuubaa bu baax a baax gannaaw bi ñu ko santee màggalan ko vraiment neex na lool ñu ñaan sëñ Fallou suñ borom ñu fekk ko ay déwéni déwéni déwén bak sëñ Tuubaa lii moom daa yombut man ay ay at a ngi nii daanaka fekk ma senegal ren dogal mu fekk ma Sénégal ñu koy dund ñu ngi sant bu baax a baax di nuyu sama mbokk yi nga xam ne nag ñu ngi si àll bi. di ñaan si bàkkab sëñ Fallou ña nga xam ne fa nekk seen kayit yi jàppandi xéewal yi jàppandi tubaab yi mais ñu jàmm ñu am addiyee di ko indi si bàkkab sëñ Tuubaa macha allah nga ne ay at a ngi ni toog fekk la mm. kon tey bi nga ñëwee fi am na yëg-yëg boo yég lan nga yëg si mag waaw waaw santaa sëñ Tuubaa baax a baax te xam ne ñun fépp fu nekk rek moom leen di sant ndax lépp nun mel mooma ginnaaw yàlla ak sëñ Tuubaa ñu ngi santaat bu baax a baax di ñaan ñu fekk koy ati at ànd ak xéewal ànd ak mucc ànd ak jàppandi bàkk sëñ Tuubaa man ne tey maa ngi koy diis sëñ sëñ sëñ Fallou si bés bi maanaam maanaam saa moo mooy danoo maanaam danoo bari ay ay ay jafe-jafe maanaam jafe-jafe kayit pour bëgg ñëw seet seen njaboot maa ngi koy diis sëñ Fallou mu jàppandi lépp da nga ni déwén ñëpp ku bëgg a ñëw suñu borom jàppandi la nga ñëw ànd ak xéewal ànd ak mucc ba seet sa njaboot bàkk sëñ Tuubaa loolu dong man sama bopp sant ma sant naa ndax ñëw naa. macha allah kontaan na lan ngay wax Touba Média. Touba Média waaw ñu ngi kontaan ndax lii lépp sëñ Touba mbég mbégte mi la rek. waaw ndax lii dafa dafa neex ak mbég ñëw nga ñëw ànd ko nit ñi di ko santale kenn mënu laa kenn mu leen a fay yàlla na leen bi fay. ànd ki i taw weex ànd ak i jàmm bàkk sëñ Touba. jaaraama amiin kontaan nañ jërëjëf ak Touba Média TV li ma leen wax rek nee naa leen incha allah rabi dara du leen si raw ngeen si bëgg am topp leen incha allah. tey ñu ngi woyal suñu liggéey fii si Touba ñu ngi nii nee naa la ñu nii si jumaa ji taxaw ak kenn si suñu mbokki taalibe bi maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar soxna si bu wér a wér kay euh, gi noo dundee màggal gi. waaw gi moom ñu ngi ko doon def kon ni nga ko daan defee rek di ci sant Serigne Fallou bu wer ndax sëñ Fallou moom lépp luñ ko màggal rek doyul waaw lépp luñ ko màggal rek doyul. macha bi euh, foo jógee ñëw fee. man Diourbel laa jógee Diourbel naka nga dundee màgg xam nga bu ñu nekk Kazu xel yëpp dem si sëñ Fallou te gis naa ne Touba sant bi foo sànni mbàkk mbaatu mu tag noo ko dundee. waaw ah, màggal gi moom diñ ko doon dundee day gën di yokk ndax sëñ Fallou da koo liggéey sëñ Fallou moom dafa liggéeyal sëriñ bi amaana mooy deuxième xalifa sëriñ Touba moo tax moom bisam war na tuuti taxaw na sëriñ bi feebu bu ndee ba jumaa ji mel ni ci mom la motax lepp luñ ko sant rek doyo machallah contane kontaan nañu sëñ bi lan ngay wax Touba Média TV wa Touba media TV mom ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax chaque jour ñu ngi leen di top di leen suivre seen liggéey rafet na mun ñoy yak ci yoon bi ñom ñom teleb serigne bi la serigne bi mo mo leen mo leen fi indi yalla ko yalla defal jàmm barke borom daaru mosi di waj magal daaru bu baax baax baax inshallah rabbi incha allah mosi wa kontaan nañu ok merci beaucoup jeuf ñi ngi fi batay di taxaw la liggéey bi rek abdou Touba Média TV nee naa la dara du leen si ëpp incha allah rabbi. waaw sëñ bi la nuyu naa la. waaw ñu ngi bu wér. naka euh, gi. waaw ñu santaat sëriñ bu wér a wér màggal gi mi ngi neex waaw. foo jógee ñëw fii. man njaaram laa jógee. noo dundee màggal gi looy yëg. waaw santaat sëriñ bi rek te xam ne moom rek a mën moo mën ndaxte lii ak ndimbal la barke sëñ Bamba waaw. di daal di ñaan sëñ Fallou yàlla suñu borom yokk leeram. allahumma amiin taalibe yi waaw yàlla ñu yàlla defal sëriñ bi defal ñu ñu doon ay dëgg dëgg taalibe. taalibe sëriñ Touba. amiin amiin rek sëñ Touba rek ñu ñor. keneen ñoruñu. keneen ku am dara téyel ñun sëriñ bay ñor. barke maam sa Rafal. macha sëñ bi lan nga wax waa Touba Média TV. waaw Touba Média TV moom ca kaw ca kanam rek yokk ak ndam rek. waaw ñu dégg fi ñuy dégg tal yëpp ñu leen fay dégg ñu leen fay degg sax ndax yéen yéen a leen raw ndax yéen sëriñ bi ngeen di wane waaw ñun nag waaw yéen lañ gëm. sëñ bi kontaan nañ. waaw jërëjëf. Euh, ok ak Touba Média TV nee naa leen incha allah rabi topp